Merci de nous suivre et bienvenue dans cette édition de 19h sur IGFM TV que j'ai le plaisir de présenter avec Awa Signaté. Bonsoir Awa. bonsoir Birame beaucoup Salam Internaute IGFM TV rawatina ñu ñuy teewli feulé ci Saly ak ci Sara Gilel xibaaru marax yi le président élu Bassirou Diomaye a fait sa toute première déclaration, une déclaration analysée par le professeur Moussa Diaw, politologue que vous entraînerez dans cette édition. À Pékin, un jeune du nom de Mohamed Diop aurait été battu à mort par les policiers. Vous aurez les explications de son jeune frère dans ce journal. La page internationale et l'actualité des sports mettront fin à cette édition. kii di président bu bees bi ñu fal di Bassirou Diomaye fay moom nag yëkkati na kàddoom yu njëkk déclaration boobu loolee mu yëkkati nag démb ki nga xamante ne moo di professeur Moussa Diaw di politologue dina ko daal di jàngat ca kin la ñuy dem foofee benn ndaw buy wuyoo ci turu Mouhamed Diop moom Mouhamed Diop maymee nag nee nañ takk der yi ñoo ko daal di dóor ba mu ñàkk bakkanam kii di magam di Iba Diop dina ci indi ay leeral li nga xamante ne moo di euh, xibaaru bitim réew yi ak tàggat yaram moom la ñuy jeexalee bi li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 du am élection bi mel ni bu ñu am bi gannaaw bi résultat bi génnee amul kenn koo xamante ne di nga seen résultat bu ñu am di naqarlu nag li nga xamante ne laata ñuy egg ci élection li fi jot a xew tax na mu am ñu ci am ay gaañu gaañu am ñoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan am ñoo xamante ne ñu bëri dem nañu kaso ñu di leen fàttaliku di leen ñaanal di leen masaw ñoom ak seen njaboot te di leen digle yu mel mën nañ ko seedal na ñu fonk ak injustice may félicité jaajëfal di ndokkeel ñi nga xamante ne mën a am melokaan boobu Le politologue professeur Moussa Diaw a analysé le discours du président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. Suivez l'analyse de ce discours. moom mi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu politique moom professeur Moussa Diaw moom daal dina jàngat li nga xamante ne moo di kàddu yu njëkk yi ki nga xamante ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di def ñu teewlu ko ci micro IGFM. président bu bees bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na démb benn discours bu am solo discours boobu nag wax na ci ni lan la war def comme priorité euh, ci priorité nag. wax na ni dana def ay réforme ay réforme institutionnelle ak politique réforme yoyu daal di équilibrer euh, pouvoir yi muy législatif muy judiciaire moy exécutif euh, lool nak lu am solo la équilibrage bobu dafa am solo motax tax ñu di jël pouvoir yëpp dox ci dekk ci ben loxo wa lool nak lu am solo la wax na aussi priorité moy mu améliorer condition vie Sénégal parce que sénégalais yi sonn nañu dund bu metti na te laal nag daana ci jokk benen priorité bi aussi modi euh mu def de telle sorte que économiquement daañu saytu économie bi seet nan nañ ko je mën a gérer nan nañ ko mëna a développer euh, mu sukkandiku ko ci agriculture bi de telle sorte que aussi xeyu ndaw yi nek une priorité euh loolu nak wax nako euh muy discours bu nga xamné ne discours bu bees lay doon té noonu ni ñu doxalee aussi politique bi dañ koy boole yermandé dañ koy dañ koy boole euh, aussi ak humilité euh, lool nak lu am solo valeur yoy lu am solo ak probité lool nak valeur yu am solo la day permettre euh ñinga xamné ne ñoo ngi ñoo nekk ngi nekk ak exemple ñi ñu nga xam ni seen loxo dafa set té nak lu lu leen lu leen soxal dal moy développer réew mi seet développer askan wi de telle que ñop gis ci sen bop euh waxna aussi bitim rew ni euh, day am relation lu jëm ci Afrique da naka développer, lu jëm ci diversifier relation yo xamni ak bitim réew la la amal amal euh, am relation yoo ni dañu certain intérêt intérêt rew mi intérêt Sénégal intérêt askan wi ñu soga doxal politique bu mel non euh, en tout cas li la tëral comme ay ligne moy feuille de route am Euh, nga xam ni euh, Sénégal yi gis nañ si seen bopp te moo tax euh, jeunes yeeg ñëpp daay koy woteel mu mobilise ñu mobiliser wu ñu def taux de participation bo kawee ñu ngi xaar résultat yi génn daañ ci xam dara daañ ci am lu leer Après cette déclaration, suit l'analyse de l'expert en communication Bakary Domingo Mané. ba tey dañuy dess ci walu wowe rek ci cadre euh, yi nga xamantene mom moom la président bu bees bi daal di yëkkati kii di Bakary Domingo Mané di expert en communication momi it def na ab jangatam. ñu tewlu ko ci micro IGFM. premier discours euh, président Diomaye Faye li ñu mëna retenir manam euh, sur le fond et la forme d'abord fond bi. Euh, Sénégal yi bari dañ ko doon xaarandi si lan mooy nekk chantier am lan lay njëkk liggéey lan mooy si lan lay liggéey donc euh, dafa ne moom bu ñëwee en tout cas chantier euh, parmi les chantiers bu mu war a doxal mooy d'abord la réconciliation nationale. parce que réconciliation boobu dafa aaju sur le fait que le président Macky Sall. Euh, gouvernance vraiment il a tout fait pour diviser les Sénégalais donc moom dina ñëw vraiment Djema, vraiment Bolo Sénégalais yi et le chantier bu bu bu am solo Benen chantier bi mooy gouvernance euh, euh, kan lay liggéey ak ñan liggéey donc dafa ne moom dina liggéey ak Sénégal yi nekk si biir ak bitim réew mais yemul foofu dafa wane ne ko compétence fu mu war a nekk fu mu mënta nekk rek mun na ko jëlee foofu mu ñëw liggéey Sénégal que ça soit de l'opposition wala fenn donc euh, euh, du xo du du aaji ne kii moo ma jàppale kii moo ma jàppale non l'essentiel nit ki bu amee compétence mun na liggéey ak moom. beneen bi c'est les politiques publiques maanaam euh, dafa na introduire ay concertation yoo xam ne daal pour que nit ñi waxtaan vraiment sur les les les politiques publiques donc voilà dans le dans le fond. Hein, donc, euh, que euh, maintenant les partenaires hein, à l'étranger. Hein, donc, euh, d'une continuer à mais sauf que vraiment n'en est que le respect mutuel et donne et intérêt Sénégal euh, fait. kaw. Restons en politique pour parler des félicitations adressées au président nouvellement élu au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Après le président français Emmanuel Macron, les présidents béninois et guinéens ont aussi adressé des messages de félicitations au président Bassirou Diomaye Faye. ba tey dañuy des ci politique wax ci ndokkale yi nga xamante ne moom la njiitu réew yi daal di dokkale kii di président bu beesu Sénégal bi le kii nga xamante ne moo di président français bi di Emmanuel Macron moom ak président béninois bi ak guinéen bi ñoom it bind nañu ab message ngir daal di ndokkale kii di jiitu réew mu bees bi Après la défaite de la coalition Beno leurs militants admettent la défaite et soulignent qu'ils font preuve d'un esprit de fair play. Écoutez-les au micro de Khalifaï. gannaaw bi nga xamante ne coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom daal di nañu ñàkk élection yi lee ñii di seeni militant ñoom nag xamle nañ ni que ni gannaaw lépp rek mbiru yàlla la te peuple bi ñoo daal di def seen choix ba tax na ñoom dañ koy daal di nangu ñu teew teewlu ñenn ci ñoom ci micro Khady fay nangu nañ ni Bassirou Diomaye Faye gagné na au premier tour li am solo yëpp mooy démocratie Sénégal en grosso modo moom moo gagné parce que li Amadou Ba def nii c'était pas évident mais def na ko ñaanal na ko jàmm ñun tamit du dundewuñ ko neen dudul xam ni yàllaa ñu fi tegoon yàllaa ñu fi jëlee léegi nag dañuy nangul yàlla dogal voilà di wi ñaan yàlla saxal jàmm Sénégal. ñi ngi ñaanal ñi nga xam ne nekk dañoo ñëw bees muy le président Bassirou Diomaye Faye moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu liggéey Sénégal doole Sénégal xam ne nekk liggéey lu ñu kenn lu dul ñun. tey jii euh, ngelaw bi ci ñoom la jëm. mooy ñoo falu ñoo war nguuru waaye nañ jàpp ne fal nañ jomaay mais nekkatul seen jomaay jomaay président de la république la lepp lu way doon wax jomaay bu njëkk ñemeetoo ko wax parce que amna lu lu mu yor moy jomaay président de la république muy Pastef APR ñëpp moy sen président ni ni mu ni ni ma war a man ni la la wara samé yow sam wa Pastef gépp c'est le peuple qui décide et le peuple a décidé de son choix de choisir Bassirou Diomaye Faye comme président cinquième président de la République du Sénégal et comme il a dit nous lui souhaitons succès et bonne santé pour le pour les intérêts supérieurs du pays. non Amadou Ba n'a pas fauté xam nga li am mooy que ne ñëpp gis nañ nekk campagne bi nu mu demee te wax na ko léegi élection eh, eh, comment on dit exceptionnel nañ fi am boo xam ne nekk mosuñu ko dund Sénégal situation bi mosul am waaye nag eh, gis nañ ne que tardé nañu commencer campagne waaye comme li may wax tey Sénégal du ma wax maturité mais j'appelle à plus de valeur parce que nit ñi tey toll nañ foo xam ne nekk tey li ñu lay wax ak la ñuy def bokkul. moment dama naan ku génn xas jomaay. naafeq nga xam nga lu tax parce que defagul su doxalee nag fii ak un an six mois nga gis ne deful xam nga droit génn. on va se poser nag dinañ opposé wu comme ni ko ñëpp doon defee mais dinañ ko def ci beneen anam boo xamante ni ñaanuñ yàlla e opposé wu kenn di dee wala kenn di manqué ci Sénégalais yi mais dinañ ko teg ci ay texte ak ay loi pour défendre tam sunu parti jéem a conquérir pouvoir bi incha allah. que ñun pare nañu en tant que moom le nouveau chef de l' opposition du Sénégal ànd ak moom. continuer défendre projet politique sénégalais Le président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal, Mamadou Cham, s'est prêté aux questions d'IGFM. Il explique les difficultés des opérateurs économiques du pays et évoque la nécessité d'une alternance au niveau du patronat sénégalais. Inga nga xamante président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal Mom Mamadou Thiam nekkoon na gànnub Arouna Fall ci IGFM Mom nag mi ngi xamle Jafé, jafe yi nga xamante opérateur économique yi am ak it ñëwaat ci li nga xamante ne mbiru patronat bi nee na ñi fi nekk dañ leen changer ñu teewlu ko ci micro IGFM. damay dem ben, ben euh, à l'étranger doxal nit ben comme nga courtage ou utal ko les gros marchés am ci dara wala dem wote ji ci ben place teug musique lolou du entrepreneuriat du du patronat donc lolou moo doxul patronat il faut que il faut faire entreprendre la jeunesse jangal len li nga di jangal moy nga jangal len naka d'abord outel len liguey dem patronat mais bi fi vraiment il war a am rupture actuellement parce que ku mag da nga war a bàyyi ñeneen ñi ñëw ñun xale nañu ba ñu ngi bëgg nekk léegi donc il faut ñu bàyyi xale itam dem ak seen xalaat ñeneen ñi retraité loolu moom la tubaab daan wax ñenn ñi dem ñenn ñi ñëw ñun tam suñ demee ba pare former ñenn ñi retraité ñeneen ñëw indi seen xam-xam parce que xam-xam dafay màgget xam-xam day bon ñi fi nekk vraiment bon góorgóorlu nañ mais dal je li gisé ñun niñ gisé hmm. moy ñom ñoom nekkuñu ci au diapason hmm. lolu mo métti rew mi parce que formé wuñu ben xalé hmm. xalé yi dañu wara formé jangal leen comment entreprendre bu ko défé ñam it ñu mëna a demal seen bopp parce que rew entrepreneuriat mo koy doxal à part lolu amul parce que ñi ci nekk ci fonctionnaire ak yoyu mënul ñu doxal rew parce que bari wuñu donc lolu dal la japp né ñom ñi fi nekkoon euh, parce que mais expérience Place maintenant à la page internationale qui nous mène à Londres, où la Haute Cour a rendu sa décision ce mardi 26 concernant la demande de Julien Assange de pouvoir faire appel de son extradition vers les États-Unis le fondateur de Wikileaks peut contester son extradition aux États-Unis, dit la justice britannique. dañuy dem ci xibaaru bitim rew yi Londres lañu ñu jëm foofee nga xamante ne haute cour de justice mo daal joxé joxe ndogal né ki nga xamante modi Julien Assange di mëna def li nga xamante modi extradition fële ci États-Unis mom mi nga xamante moy fondateur Wikileaks nak dina mëna a contester li nga xamante moy mooy biñ koy jëlé Londres daal koy yóbbu fofé ci États-Unis lolé la justice britannique daal xamlé En sport, l'équipe nationale du Sénégal joue son deuxième et dernier match amical du mois de mars, ce mardi à Amiens en France, contre le Bénin après avoir battu le Gabon vendredi dernier. Le sélectionneur national à Cissé veut enchaîner. Sénégal fële ci Amiens ci France lañ koy daldi di mom nak mi ngi daldi jongantel ak équipe bi di Bénin gannaaw bi mu dooree Gabon ci aljuma bi ñu génn mom sélectionneur national bi di Aliou Cissé nak néna ndam rek ko tax a ñu teewlu ko. je le dis je le répète encore c'est des matchs euh, amicaux moi je n'ai pas regardé le le le match de de Bénin. Euh, Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, c'est que le Bénin, on le connaît, ils ont fait partie de notre, de notre, ils faisaient partie de notre poule pour les éliminatoires de la Cannes 2024 euh, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est nous qui les, qui les éliminons. Donc, euh, nous savons que ça sera un match disputé. La preuve, le dernier match qu'on a joué chez eux, on menait jusqu'à la 94e minute. Je crois qu'ils ont égalisé. C'est une équipe qui ne lâche rien c'est une équipe qui se battra et en réalité c'est ce que nous cherchons aussi. Nous voulons aussi une bonne opposition. Euh, ça sera un bon match, un match physique, euh, un match euh, très africain. Donc, tant mieux pour nous. C'est ce qu'on est venu chercher ici à Amiens, c'est-à-dire avoir vraiment une bonne opposition qui nous préparera à, ces deux matchs au mois de juin. Non, il n'y a pas de, de, système à double tranchant. Et en fait, le système, encore, je le dis, je le répète, Bakary, c'est pas le plus important dans le système dans le football, quoi. Je veux dire, les gens parlent tout le temps de système, de système. Mais je veux juste, pour ton information, te dire que dans cette équipe nationale, il y a de grands joueurs. C'est pas des joueurs, euh, euh, c'est pas des jeunes joueurs. C'est des joueurs aujourd'hui qui font ce qui, qui font le métier le plus noble, mais ils le font dans des clubs, euh, ils le font dans des championnats les plus les plus relevés. Euh, tactiquement, ce sont des garçons qui sont qui sont au courant de ce que je fais. Euh, il est là, d'autres <laughs> vous pouvez leur demander, ils sont au courant du système qu'on est en train de faire. Ils savent exactement quel est leur rôle dedans, donc ils essayent de le ils essayent de le remplir. L'attaquant sénégalais Abib Diallo a déclaré en conférence de presse que l'équipe doit marquer plus de buts. Selon lui, il faut éviter de rater des occasions. Qui dit attaquant sénégalais bi di Habib Diallo ci conférence de presse ba la da di xam ni attaque bi war di ay dañu a di di rater yenn occasion yo xamante war nañ ko mëna oui pour le match euh, de Gabon on a eu pas mal d'occasions après on a marqué que trois. Après, nous, les attaquants, hein. on sait que des fois, on manque euh, des occasions, mais c'est pas fait exprès. Quand on rate des occasions, on voulait forcément le marquer. Après, on a du travail à faire encore euh, devant les buts pour euh, essayer de ne pas manquer les occasions. Surtout ce match contre Gabon, on a eu pas mal d'occasions après un mi-temps, même en deuxième mi-temps, on a eu aussi. Mais on va travailler pour ça. Il a vous parlé de L'équipe nationale est un club, donc euh, c'est pas pareil. Donc euh, club, euh, c'est un groupe, on est tout le temps ensemble, on travaille tout le temps, presque 11 mois ensemble. Donc en sélection, on est là des fois pour un mois, maximum un mois. Donc après, c'est pas pareil, on peut tu peux jouer avec des gens qui connaissent ton jeu tout le temps, tu vis avec eux tout le temps, mais en sélection, tu es au moins deux semaines avec eux. Donc euh, après, il faut travailler euh, pour euh, se connaître mieux. Chacun connaît le jeu de l'autre. Donc je pense qu'on va, on va y arriver. Donc. Non, au début c'était compliqué. Après, c'est ça arrive à tout le monde. Donc chacun, je pense que c'était un footballeur. Chaque footballeur est passé par là. Donc moi, c'était début de saison, c'était compliqué, mais là, en ce moment, je reviens petit à petit, donc euh, j'espère que ça va continuer comme ça et continuer de marquer des buts euh, en club et en, sélection. Merci Awa, c'était tout pour ce journal. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur igfm.sn et sur nos plateformes digitales. À très bientôt.